aja ñu ngi ci taxaw seetlu yi mbokk yi gannaaw bi nga xamante ne combat bi jeex na diggante Bulldozer ak i nga xamante ne moom mooy Brise de Mer gis nga combat bi de ni mu demee. Euh, grand combat la du grand combat lamb la du lamb boo xoolee fi Bulldozer jaar tournoi bi mu duggoon bëreeg alliance biram biñ ko càmbaree avant combat bi euh, ñëw wax naa la ci lu leer. làmb da nga koy topp Bulldozer dafa duggoon ci tournoi daan bat Seras numéro 2 daan bañi kayre doomu booy kayre daan booy barñi bu écrit booy ñaa ndaanaan lay bëri tey mbërëntaan ëmb ko muy général Malika ñu boole kook alliance biram ci arène nationale ñu ne daan na alliance biram daanu ko ñu kase vertique boobu nañ yem foofu Brise de Mer bi mu yor wax naa la ko defu la ci moom parce que heure bu dawee songu buñ ko tëlee buñ ko fiilee bu ñu bësee bopp bi mu tij bopp bi ci suuf si. Zal Bambey bi muy bëreeg moom fii ci Iba Mar Diop. noonu la ko Zal Bambey def. donc nit du ñëw fekk ñaari combat yoo xam ne dalay leer ne kii yaram bi man dina bëre nga naan cinquante cinquante. ubbi làmb ji non da ngay ubbi làmb parce que làmb ji am na ceeb bu sew. am na ceeb bu dijji. am na Caroline am na riz parfumé màcc leen ci daxaar gi. waaye coach bàyyi ma waaw mais coach coach gis nañu combat bi aussi bu weesoo loolu noonu ku ëpp relance comme ni nga ko waxee ku ëpp doole daan na te jëli bi rëy na. non man booy wax làmb damay exprimer wu ak volonté. ak may nit ñi li ñu doon wax ne daal favori bi daal. teel na Bulldozer la ndaanaan la. Bulldozer fu mu jëm. xam nga dafa am génération yi mu tolloon. moom bulldozer te nee naa la fii Sénégal waaw li ma la wax bind ko téere hmm. mbër mu fi bëre mën naa laa limal juróomi mbër yoo xam ne du ca génn moom fu mu jëm wasalaam coach doo ma wax fu mu jëm ma ne macal ci Dakar gi coach lii la ma indil tey macal ci Dakar gi alors mbokk téléspectateurs yi ñuy félicité bu baax baax ki nga xamante ne mooy bulldozer di encouragé Brise de Mer jarul muy bàyyi laa mën a waajalaat rek daal di dellu siwaat di encouragé ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëgg làmb ji et tout donc ñu leen di jox dig daje très ci beneen numéro peace Thank you.